ci euh, boppu euh, assemblée nationale boobu loolu nag après li ci topp yaakaar naa ne ñi ko fekkee kenn fàttewu ko ci mooy euh, xeex gi ci biir PDS ba mu mujjee génn ci boobu ci ber yoonam tey mu nekk président waaye contexte bi itam may ñu ñu mun a waxtaanee waat lii ndax fi mu ne mi ngi ñoddi libéraux yu bari di leen teg ci wetam ki ci mujj mooy Oumar Sarr ci remaniment bi nga xam ne moom la ñu weesu waaye itam Idrissa Seck mi nga xam ne tey moom moo jiite conseil économique sociale environnementale ngir waxtaanee xew-xew boobu ci biir PDS na nag dañu ciy dalal maître Cheikh Touré bokkoon euh, ci boobule euh, parti euh, tey muy yëngu ci leneen waaye mun ñoo wax lu bëri ci lii ñuy waxtaanee maître Cheikh Touré ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal ci Demb ak Tay. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafetlu li nga xamante ni jël ngeen ko pour leeral. Euh, li nga xam ne moo xew ci dëkk bi ngeen koy leeral ngeen jox ma parole kon boog dinaa sawar trop pour waxtaan a yéen pour tontu leen. Mm-hmm. xanaa bala ñuy dugg ci waxtaan bi nga wax ñu euh, yow yaay kan euh, kañ nga nekkoon ci parti démocratique sénégalais ndax génn nga ci kañ nga ci nekkoon kañ nga ca génn lu la ca génnee nekkoon nga itam député à l' assemblée nationale ma signalé ko. waaw man dama dama ñëw bi nga xamante ne nii nekkoon naa. Euh, fonctionnaire jóge France Paris jàng ba pare am sama troisième cycle ñëw nag di liggéey ci Sénégal parce que bu moon toog nag euh, France ah, bi ma ñëwee nag dugg travaux publics ma gis nañ fay liggéeyee ak ni ñuy doxalee yëf yi naqari ma ma daal nekkoon bokk il faut que ma dugg ci benn parti politique boo xamante ni dina mën a changer yëf yi. loolu ban année la woon. loolu mu ngi nekkoon ci 1981 81 laa pare samay études. daal di ñëw am sama troisième cycle daal di ñëw dugg direction des travaux publics yor transport également. Mm. parce que man ingénieur multimodal la am na. loolu nag bi nga xamante ne ni seet naa ni yëf yi mënul dox ak PS ni mu doon lijjantee yëf yi ma ne kon damay dugg ci benn parti mm. PDS nag ma fi nekkoon euh, Ablaye Wade ma seet ko ne ko daal man dama bëggoon euh, ñu changer dëkk bi mais li ngay doxal nekk na loo xam ne lu ma neex te mm. je suis engagé ñëw lijjanteeg yow daal di liggéey mu daal di ne ma est-ce que loolu di ko mën parce que cadre yu bari dañ leen di yóbbu prison et tout ma ne ko après nag ñu accepté noonu laa duggee ma duggee PDS nag euh, ma xool ni Ablaye Wade li tax jëlul pouvoir bi c'est parce que xale yu bari dañ ko doon topp mais cadre yi topp ñu ko. ci laa ko waxee ni ko président léegi cadre yi daal amuñu place sa parti bi moo tax dinga am problème mu ne loo xalaat ma ne ko daal da def meeting. boo defee meeting woo cadre yi après ñu créé nag la structure des cadres du PDS loolu bu ñu ko defee defe naa ni mu ne ma loolu est-ce que kon boog yow mi ko xalaat yow yaa koy gérer mu ne ma ça ne me mu ne ma ah, di nga am ay problème yu bari de parce que cadre bu toll ni yow nekk euh, ci administration bi di liggéey nekk ingénieur ma ne ko loolu yëpp amul problème parce que mën Sénégal moom ak mu ñor parce que ni ma jógee France nekkoon fa euh, amoon fa toutes les possibilités toog jàng ba pare Air France jël ma ma bàyyi yépp ñëw fii donc loolu daal jaaxalu ma mu ne ma bon d'accord y de problème ah bi ma dugg see nag ba ñu créé coordination des cadres ci la ñoom Macky Sall ak ñoom ñëpp ñëw après nag ñuy liggéey liggéey bu am solo. ci biir liggéey boobu nag euh, defe naa ni Abdou Diouf euh, sonaloon nañ ko trop parce que lépp lu mu décidé woon rek ci loo xamante ne nii euh, nekkul ci intérêt Sénégal dañ ko doon dañ ko doon xeex. rax ci dolli encore ñu xool élection yi ni mu koy organiser. ñu def liggéey boo xamante liggéey bu am solo la. ba finalement Abdou Diouf ci boppam on a constaté que ni euh, code électoral bi baaxul Ablaye Wade bu demee élection ñu jàpp ko indi et tout cela ñu nekkoon bokk vraiment. situation bi foog ñu continuer combat bi. bi ñu demee ba mu metti ba metti Abdou Diouf ci la wootee nag daal ne effectivement léegi nañu toog ci biir woote boobu ci la ñu créé. li nga xamante ni mooy code électoral consensuel et tout ça. bu 91 bu 91 kon bokk ñu liggéey ko 92 ñu ñu am code électoral bu wóor ñu commencé nag euh, di def liggéey bu am solo ci la Ablaye Wade sax un moment donné dugg ci kii bi mais cadre yi d'accord ñu woon. Mm-hmm. mais xam nga Ablaye Wade dafa mën stratégie waaw ci dugg ci gouvernement bi et tout cela loolu mooy li nga xamante ne nii mooy départ bi. Mm-hmm. waaw léegi léegi nag euh, li ci am solo ba am solo mooy bi Ablaye Wade xeexee xeex ba ñu agsi au pouvoir euh, fekkoon ni man avant euh, en 1960 en 1994 j'étais député à l'Assemblée nationale ba ma fa génnee ma nekk directeur général bu COSEC bi Ablaye Wade jëlee pouvoir bi après nag bi nga xamante ne ni Ablaye Wade. Euh, nekk na au pouvoir toujours Macky Sall mu nommé ko premier ministre ma nekk ak Macky Sall comme conseil spécial après bi nga xamante ni Macky Sall am na ay problème ak Ablaye Wade génn euh, nu mu ci la ñu comprendre daal ni na war quoi. Macky Sall ne léegi day dem élection waaye diggante boobu nga xamante ni demoon na assemblée nationale man dama toogoon président de la république nekk ak Ablaye Wade ba tey. voilà léegi euh, ñu delluwaat ginnaaw tuuti wax ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am diggante Ablaye Wade ak Macky Sall yooyu jafe-jafe kañ la tàmbali ak lu ko waral. waaw jafe-jafe boobu xam nga ñun euh, ak Ousmane Ngom ak beneen équipe dañu nekkoon euh, di ak Ablaye Wade bi nga xamante ne Ablaye Wade mu ngi defar liste député en 98 fekk ñu defoon nañu liggéey bu baax ku mel ni man. léegi nag reconduire wuñu te ñëpp ñu bokkoon ak nekkoon ay xaritu euh, Ousmane Ngom mu écarté leen loolu nag nekk un problème boo xamante ne nii. boobu lu xew diggante ak Ousmane Ngom. Euh, boobu finalement du woon sax problème mook Ousmane Ngom mais problème bi ak Idrissa Seck ak Aminata Tall la. Mm. parce que sa sekk dafa ñëw bëgg a positionné comme numéro 2. te Ousmane Ngom nekk fii. Mm. d'accordul mu am nag lutte de clan bu metti ba finalement euh, bi nga xamante ni ñu ngi reconduire les député ñu jël camp wu sa Seck ñi nekkoon ak moom ak Aminata Tall yépp ci bari ñu jox leen ñu nekk député Ousmane Ngom ñi nga xamante ni ay xaritam la ñu woon ñu écarté leen foofu nag la Ousmane Ngom mere yi nag li ñuy wax le parti libéral sénégalais foofu mooy li nga xamante ni am na. bi mu créé parti libéral sénégalais ah en 98 ñu dawal tuuti 2000 jot ñu dem élection ah Ablaye Wade dem deuxième tour ak Abdou Diouf ci la ma woowee ne ma léegi nag looy def ma ne ko mais tu as parfaitement raison xeex nañu ba nga am code électoral ba nekk de war a dem euh, nga yóbbu Abdou Diouf euh, commandé deuxième tour donc c'est normal que sa gëm dañu xeex ba foofu ñu dellusiwaat jàppale la ci laa demee ci Ousmane Ngom ne ko léegi xeex bi day arrêté Ablaye Wade dem na élection mu ngi nekk deuxième tour il faut ñu jàppale ko bon Ousmane Ngom n'était pas d'accord ñu bari d'accord ñu mën nag ma jël samay responsabilité boobu ana Macky Sall boobu Macky Sall euh, nekkuloon fenn Macky Sall était un cadre euh, boo xamante ne nii ci sama coordination des cadres la nekkoon nekk euh, membre du secrétariat national mais il avait aucune responsabilité nekk woon dara loo xamante ni lu am kii la koi donc enjeu bi foofu la nekk muy Idrissa Seck Ousmane Ngom coordination des cadres ñun ñoo fi nekkoon ba évoluer léegi nag bi nga xamante ne ni situation bi demee na noonu ah euh, Ousmane Ngom ne ma moom du dem man ma ñëw ah bi ma ñëwee jour bi nga xamante ne nii décidé naa pour rejoindre lay Wade parce que duñu ko lu woon Macky Sall moo doon médiateur bi moo doon wax woy Cheikh def leen nii def leen nii ñu nekk en direct ci biir euh, bureau politique bi ak euh, Ousmane Ngom euh, à chaque fois mu naan ma eh, fu ngeen décider ma ne ko nag man mën naa garantir sama bopp ne man damay ñëw jàppale Ablaye waat mais mënuma garantir ñeneen ñi parce que d'accord ñu pour yëf yi nu mu demee mu ne abo ah ma ne ko waaw noonu la demee bon bi nga xamante ni nag Ablaye Wade nekk na président la République premier gouvernement bi bi nga xamante ne nii defar na ko bon euh, nommewul woon Macky Sall nekkul woon ci parmi les ministres et tout cela mu mer bon bi mu meree nag ci biir loolu man personnellement euh, Macky kii président daal revenir en arrière ci la ma nommé directeur général du COSEC nommé Macky Sall euh, comment dirais-je Petrosen bon bi mu nekkee Petrosen ñu évoluer man ma nekk ko sec un moment donné nag am na yenn comportement yoo xam ne mënuma ko wax ci ci ci rajo. Mm. yoo xamante ne nii euh, exiger woon nañ ma ko ma ne woon nag lii duma ko nangu. ku la ko doon exiger. Euh, Idrissa Seck moom ko doon exiger. Mm. ma parti bi nii lay doxee nii lay doxee et tout cela ma xamal ko ni ko man parti bi ma fi ñëw andi te man dafa am loo xam ne defe naa ci sama àqulaay taala moom laay moom laa gëm. waaye du may ñëw lii nga xamit ñoo ko bokk ma ci am lu ma ciy doxal wala quelque chose comme ça loolu mënul ne mu ne ma ah à prendre ou à laisser. daf la bëggoon yilif daal. du question yilif. question hmm, question ci biir euh, xam nga rek bu fekkee ni da nga nekk euh, directeur. Hmm. am ay ay ay responsabilités financières. Hmm. yoo am solo nit ñi dañ lay teg bët. soit ñu bëgg nag. ci biir loolu nga xamante yaa ngi créer soci yaa ngi nekk ci ci société bi yor possibilité yi lu ci bari nekk ci parti bi ak yooyu man leen nag loolu mënul demee noonu man ni ma ko gisee du noonu parce que dafa am ay règles ci société bi am ay marché yoo xamante ne nii pour agsi ci il faut que nga def euh, appel d'offre te mën mënuma def yeneen yi ñu ne ma nag bu fekkee noonu la apprendre waa laisser ah noonu la ma Idriss Seck influencé ba dàq ma hmm? waaw bi ma génnee nag ci ci bi ma daaxee bon ma daal di toog après nag euh, moom tamit defe naa euh, bi nga xamante ne nii euh, dàq na ma en même temps mu nekkoon na premier ministre mu am problème ak ak Ablaye Wade <coughs> waaw bi ma amee problème ak Ablaye Wade man daf ma dàq 2004 mm-hmm. defe naa six mois après ñoom moom it ñu dàq ko rawantewu leen lu bari rawantewu lu ñu bari après nit ñi naan ma wax sax yow ma ne ko non tooñ baaxul parce que man di ma bëggoon loo ak ñu ñu sonni ci parti bi mu bëgg la teg foo xamante ne nii man duma ko nangu te ñi ko def yépp gis nañ leen ñi waa ci prison la ñu nekk et tout ce qui s'ensuit man boo gisee ma kii parce que dafa amoon loo xamante nii moom daa gëmoon ah, <coughs> bi mu demee nag après ci la ko Macky Sall remplacé Macky Sall bi mu ko remplacé jël ma comme conseiller ñu commencé nag liggéey bi man nag sëgam dama nekk expert multimodal transport lépp lu bokkoon ci maritime aérien terrestre bokk ci cargaison bi euh, commande moom ci laa nekkoon di yëngu lépp lu bokk nag ci liggéey tali infrastructure et tout également moo loon sama spécialité moom laa liggéey ak Macky Sall boo gisee Macky Sall bi mu nekkee premier ministre projet yu bari ak Idriss Seck dafa bloqué woon mais Macky Sall bi mu ñëwee yëpp débloqué wu te bi mu débloqué parce que dafa amoon une équipe autour de lui mm. bi mu nekkee premier ministre ñun ci la ñu bokkoon ba finalement mu am ay résultats yu extra. mooy projet Wade yu mag ah. <coughs> ya waaw ah léegi nag bi nga xamante ni élection yi jot na ba Macky gagné élection yi ah Ablaye Wade xëy suba daal di ne ko bon léegi ni ngay def da dem euh, assemblée nationale. bi mu demee defi la assemblée nationale kii la jël Hadjibou Soumaré je crois. Mm-hmm. Hadjibou Soumaré remplacé ko fa ah Ablaye Wade dajeeg man ne ma bon qu'est-ce qui se passe ma ne ko foo nekk léegi ma ne ko man damay dellu soo ministère. mu ne pourquoi ma ne ko mais ah Hadjibou Soumaré nee na buggul des politiciens mu ne moom il n'a rien compris kaay je te prends à la présidence nga ñëw nekk foofu ak man noonu la ma jëlee ma nekk foofu j'ai travaillé avec Ablaye Wade dans ce Macky Sall nekk euh, assemblée nationale bi mu nekkee assemblée nationale <clears throat> ñu dem ba ci digg bi jékki-jékki ne dañuy changer statut euh, président de l' assemblée nationale. Hmm. loolu loolu li ko jiitu nekkul euh, bi mu waxee ne dafa bëgg a déglu Karim ci chantier yi. waaw amoon na amoon na effectivement un problème hmm. parce que bi mu ñëwee en fin de compte sax du moom moo xalaatoon loolu. kooku Iba ak euh, comment il s'appelle ñoo xalaatoon loolu. Ibader dem si yàlla. si yàlla ñoo xalaatoon loolu effectivement euh, wax ko Macky Sall Macky Sall mooy moo doon président de l' assemblée nationale te lettre ba jëm ci Ablaye Wade moo ko signé. en tant que président foofu nag la ko Ablaye Wade indexé. kon mbirum Karim Wade jógewul ci moom yow yaay ñaareelu nit xaw ma ñett bu ma ko wax. voilà effectivement Macky en réalité il est victime. il est victime. dañ ko manipuler y'a l'ancien président de l'Assemblée nationale nekkoon na fi président après après Macky Sall. moo Seck Mamadou Seck parfaitement. Mm-hmm. c'est Mamadou Seck ak euh, Iba ak euh, Iba Der ñoo nekkoon à la base de convoquer pour la transparence Karim Wade mais lettre ba étant donné que moo président de l'Assemblée nationale moom moo ko signé ci la Ablaye Wade nag ciblé Macky Sall daal di ko xuloog moom ainsi de suite ah Macky aussi euh, euh, ne pouvait pas rien faire ah ñu xëy suba nag léegi ñu nekkoon président assemblée nationale léegi dañ koy changé au lieu mu nekk cinq ans dañ koy def tous les ans mm-hmm. ci la mere nag. miti kii euh, Macky Sall xam ne dañ koy bëgg a balaa ñu koy dàq moom mu dàq boppam c'est ce qui s'est passé mm-hmm. bon bi mu dàqee boppam la gis nga muy dugg di évoluer di dem euh, nekk ci opposition bi ci la jële décision yu bari et tout ça bon man personnellement sax mu xuloo woon naa ak ab Ablaye Wade nekk ak Ousmane Ngom ba ñu écarté wu léegi bu xulootee ak Macky te ñi ñuy jubale woon c'était c'était Macky Sall. Hmm, waaw. ma xoolee ak Ousmane c'est c'est moo nekkoon médiateur ñoo nekkoon ñoo jubóo woon loolu la woon. léegi moom it bu xuloo waatee ak Macky la ma ñëw toppaat Macky Sall bon xam nga dootuma am benn crédibilité. Hmm. c'est ce qui s'est passé. Macky Sall nag a trouvé que moom daal mën na euh, kii daf koy ñàkkal fayda Abdoulaye Wade kon boog il prend ses responsabilités. laa di bàyyi et ci la commencé ses activités politiques. ci biir activité politiques yi nag di dem di dem di dem ba élection jot bi élection jotee lu leer te leer Macky Sall la gagné Ablaye Wade. bi mu gagné euh, bi Macky Sall la gagné Ablaye Wade Ablaye Wade accepté ko parce que président yu bari Afrique buñ la gagné da ngay refusé ne gagné woo indi ay xeex indi ay xulu mais Abdoulaye Wade nag a été un très grand démocrate. waaw ni ko Abdou Diouf defee woon ak moom ni ko Abdou Diouf defee mu defee ko noonu. Mhm. ah ñu daal di dem Abdoulaye Wade woo ñu ñun ñëpp daal di nenu Macky moo jël lii fii c'est un libéral jàppale leen ko mais ñun ñëpp ñu nekk ci ginnaawam ci la ñu ne étant donné que Macky président bi nee nañ ñu jàppale Macky Sall il faut que ñu nekk ci ginnaawam. mais Macky n'a pas joué le jeu. Hmm. waaw Macky n'a pas joué le jeu parce que. est-ce dafa am lu mu téye woon. waaw amoon na amoon yu bari yu mu téye woon. mais le fait que Abdoulaye Wade wax ko mu ñu jàppale ko moom euh, defewul noonu. waaw mais est-ce que est-ce que tamit est tamit bi muy euh, am problème ak Ablaye Wade bañ koy toroxal à la limite euh, ci biir parti démocratique sénégalais am na ñu ci doxoon tànk jàmm est-ce que euh, defoon nañu ay pexe ngir juboole leen wala ngir xëy na bañ ñu yegg fenn ak moom parce que daan nañu sax tàmbalee lu ñutu ay mbiram et c'est sûr que buñ gisoon luñ ko toppee jamono yooyu moom. dugg na ci kaso bi comme ñenn ñi. waaw effectivement il est évident que ni. Ablaye Wade bi nga xamante ne nii jàppante nag ak euh, Macky mais avant avant lettre bi muy def lettre pour convoquer amul woon lu garaaw ci mu diggante moog Ablaye Wade je sais que ni élection yi bi mu jotee te Macky Sall gagné élection yi ci la sentir ni Macky Sall déjà def na post poste yëpp mm-hmm. benn poste rek moo ko dese président la république kon boo il était question. que mu bañ ko jox doole ju mel noonu pour favoriser son fils c'est Macky Sall a compris ça occasion bi nga xam ne nañ ko bëggoon a toroxal moom it moom mu daal di nekk mooy bi ko Ablaye Wade di yóbbu assemblée. parce que boobu ñu bëri jaaxle woon nañ. ndax mu nekk directeur de campagne am. pratiquement projet yu mag yëpp Macky Sall moo ko réalisé. mu xëy rek euh, mel ni ku ko dégradé noonu. dégradé noonu après Macky Sall ba mu ko yóbbu assemblée nationale on n'a pas compris bon mais euh, effectivement euh, un problème de positionnement parce que mm, Abdoulaye Wade xam na ni euh, élection yi euh, bu fekkee rëcc na ko Macky Sall mu jox ko doole Macky mooy jël pouvoir bi donc il fallait que mu affaiblir ko. kon kii bi commencé woon na waaye lettre bi moo ñëw déclenché. moo mooy élément déclencheur bi. moo déclenché léegi ma ñëwaat ci sama laaj est-ce que Abdoulaye Wade ak Macky Sall ba ñu amee problème. am na ay libéraux yoo xam ne jug nañu ngir dox tànki jàmm ngir jubboole leen ngir rafetal parce que jamono yooyu fekkee nañu gis nañu ñoo xam ne dañoo sotle ab Ablaye Wade dal ci kaw Macky Sall xanaa tey mën nañu ne rek yàllaa ko dimbale waaye bu du woon loolu ba ñu gis lañ doon seet tey dugg na ci kaso bi wala moom. xam nga yenn responsabilité yi boo ko amee ba am foo jaar di am relation yu bari ci biir parti bi. Mm. am na ñu bari ñu nekkoon ci parti bi Macky Sall la ñu àndaloon. di ko jàppale en douce. nekkal moom mais ñemewuñ ko woon fësal. parce que Abdoulaye Wade c'est un homme puissant. léegi donc loolu mooy mooy situation bi kon boog Macky Sall compte de situation boobu yëpp xam na ni Abdoulaye Wade jógal na ko. kon boog amatul place foofu. ci la nee nag man damay génn dem créer sans parti ba muy génn di créer sans parti yàlla xam na ni sax man étant donné que maa doon son conseil spécial. Euh, li ma li ma dérangé woon mooy en fin de compte euh, bi ñuy organiser wu ñoom associé woon ma ci dama jékki-jékki rek ñu ne ma léegi Macky Sall mu ngi nii dafay créer parti am dafay ñëw ma ne ko man lu ma fekkewul euh, waxuma ci ak te yàlla may ma ma amoon xam-xam bu leer kooku mënuma ci dugg parce que je connais xaw ma les tenants et les aboutissants mm. Macky Sall li mu nekk ak Abdoulaye Wade yëpp mu ngi ko doon préparer loolu moo doon affaire bi te bu mu génnee nag am na effectivement ay nit yu ko suivre étant donné que defoon tuuru Afrique ak euh, fi mu bokk et tout ça donc positionné woon na ba nga xamante ne nii mënoon na d'une manière ou d'une autre góorgóorlu tuuti rek jël pouvoir bi et yàlla bàyyiwu ko finalement il a pris le pouvoir. Mm-hmm. mais bi nga xamante jël na pouvoir bi te lay Wade revenir en arrière dafa ne jàppale leen ko. waaw nga ne il n'a pas joué le jeu. parce que xam nga Macky bi nga xamante ne mu ngi dem élection euh, dafa dafa mel ni communistes yi. Hmm. les trotskistes dañ ko wër. dañ ko wër nekk ak ñoom nekk ak ñoom sëgam ñoom amuñu ay nit te c'est des stratégies. Hmm. bi Macky la gagné ñu xamal ko ñu won ko ni ko bul wonteeg ñoom du ñu gagné. Hmm. Macky Sall nag gëm leen sur toute la ligne ñooñu nag seen problème moo doon. mu te am rapprochement de la famille libérale il fallait que ñoom ñu nekk ci diggante bi di créer une situation et il y a des hommes très bien parce que positionnés képp ku bëgg a organiser wu rek pour rapprochement la famille libéral automatiquement dañ lay xeex. mbaa du ñoo ko xelal traque des biens mal bi. yooyu yëpp ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko def ñoo créer situation boobu créer une animosité. profonde boo xamante ni moo Ablaye Wade ak Macky Sall uniquement pour écarter tas le système libéral ñun nag bi nga xamante ne nii gis nañu loolu te Macky mu ngi nekk président de la République te il vient de démarrer surtout ñu daal ne bon on va se rapprocher de mais Macky n'a pas répondu n'a pas ah yaa ngi accusé trotskiste yi waaye est-ce que tamit nekkul Macky mooy fayu ci toroxal bi ñu ko toroxal PDS non non parce que Macky je le connais bien hmm. non seulement il était très jeune mais am na enjeu boo xamante muy mel ni ce qui se passe am na ay idées yu bëri ñu naan Macky c'est un génie politique et tout cela je vous dis que c'est les trotskistes qui sont derrière. Hmm. qui sont en train de. comme lu mel nan. Euh, bon euh, par exemple euh, aujourd'hui xam na ni Macky c'est libéral. te ñi ko wër yëpp c'est des des hommes de gauche. si jamais ñoom il laisse le rapprochement entre les libéraux ñu xamante automatiquement ñoom dañ leen di écarter ñoom nag ñu naan ne il n'en est pas question il faut impérativement yi gën a nekk ñun dugal ko na ci ay schéma traque des biens mal acquis topp ñi ainsi de suite et tout sax il y a des personnes yoo xamante ne nii euh, aujourd'hui am na ci koo xamante ne nii ñëpp xam nañ ko parce que ñun bi nga xamante dañuy approché wu de Macky Sall jàppale ko bon ñu ñëw mu ne ñu dajalee ñëpp mu nekkoon léegi qu'est-ce comme nag ngeen may jàppale ma ne que mën nañ la jàppale d'une chose parce que mënuñu dugg ci APR à l'heure actuelle mm. mais ñun on veut un rapprochement de la famille libérale mm-hmm. ñu nekk sa waa retrouvaille mm-hmm. après mu daat ne ma waaw kon nag ngeen may jàppale te nekku leen ci APR moom sax moo trouvé les amis de Macky les Macky de Ngoné Sall te grand cheikh laa ci laa ci wóolu c'est comme ça que je suis devenu euh, les amis de Macky Sall ma nekk le le président. mooy cercle des amis. des amis de Macky Sall waaw ñun ñoo ko créé te sur proposition de Macky Sall. ñu d'accord ci. loolu ban année la woon. bi muy doog a jël nguur gi. waaw moo boobu boobu. non 2014 la woon. parce que on avait tout fait pour rencontrer ko mënuloon nekk. rencontre boobu bi mu amee. yaa a une erreur bu fi amoon. parce que bi mu ñu nee léegi ndax dañuy dugg APR wala déet ñu ne ko noonu ñun dañuy créer les amis de Macky Sall continuer di dóor ak tout ça mu ne ma mais pourquoi ngeen def ma ne ko sa structure bi nga yor nii euh, troskis yi ñoo ci gën a bari <laughs> fekk na benn trotskiste bu mag bu nekkoon foofu. Mm. ñu xuloo fa. qu'est-ce que tu kan la kooku. Mahmoud Saleh li tax ngeen nekk di kii yooyu ñu xuloo fa xuloo bu métti. léegi nag kooku moo bloqué carrément le cercle des amis de Macky Sall il a tout fait pour que ñu hmm. bañ a kii sëgam léegi ñun nous étions animés pour aider ko te y a eu ce clash boobu. Hmm. parce que man li ñu may reproché y a des moments politiques da ngay jéem jouer tuuti mais man je suis trop direct te direct boobu je pense que moom mooy poser problème. Hmm. bon après j'ai eu de problèmes avec euh, Mahmoud Saleh. mu tëkku ma daal di wax et j'ai constaté que jour boobu ban fa jóge ak décision bi ñu jël yépp ci la ñu gëj a dégg Macky Sall. waxatuñu déggatuñu rien mille tout 2014 2015 2016 ah ma jël samay responsabilité bind ko bi mu ko bindee mu boole maag benn euh, conseil technique boo xam ne sax man maa doon. patron sur toute la ligne kooku woo ma ne ma sa lettre ngi nii président lan lan lan ma ne ko lii ak lii laa gis ñun dañu animé woon pour nekk ak moom mais on se rend compte que ni affaire bi ni ngi ko xalaate woon demewul noonu. léegi nag ñu bari ñu ngi démissionné te vraiment ça pose des problèmes mu ne ma d'accord waa ji ne ma dinaa ko jox su ma ko woowee mu ne ma jox naa ko ko wax naa ko mais il n'a rien dit kooku 2014 2016 2017. me démissionner. En ma qualité de président de cercle des amis de Macky Sall je donne retire de la politique bi ma retiré woo de la politique nag na damay bàyyi politique c'est comme je suis un expert. Mhm. membre de l'ordre des experts. ma ñëw nag daal di nekkoon c'est ci j'ai assez travaillé pour les partis nekk kii beeg yooyu. Mhm. kon léegi je vais m'occuper de mon cabinet parce que foofu yëpp mën nañ servir Sénégal. autrement c'est ce qui explique ma retiré wu sur le plan politique. Mhm. nekk nag expert plein dem renouveler sama inscription au niveau de l'ordre tey jii je suis président de la section maritime je travaille dans le cadre de la cargaison maritime et et nekk ci loolu loolu mooy li nga xamante ne ni euh, bi ma jógee ci cercle des amis dama Macky Sall ak ni ñu ko bëggoon jàppale ak yëf yi ni mu demee ci la mere daal di nekkoon defatuma politique léegi daal damay ñëw lijjanti sama bopp dans ce contexte là. boobu léegi déggoo Macky Sall la. dégguma ko benn yoon laa gis mooy jour boobu mu ñu daje woon boobu ba tey dégguñu ko. d'accord tey déggatuñu ko et tout ça bon de temps en temps tu comprends nit dina ma ni daje nag mag yi mu ngi lay laaj wala quelque chose comme ça mais rien ne s'est concrétisé. Mm-hmm. d' accord léegi nag tey euh, gis nañu tamit yi euh, euh, mi ngi doon waaj a am xaw ma ndax mu ngi ci yoon bi ba léegi pour ñenn ñi moom effective na ni ma ko waxee ci ndorteel gi Idrissa Seck ak Oumar Sarr ginnaaw ñu ngi ci mouvance présidentielle bi moom ak Abdoulaye wadd également amoon na ay jéego yu am solo yu ñu yu ñu posé ndax daje woon nañ fi ci naan gannaaw médiation wu sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ak itam daje bi nga xam ne amoon na yaakaaru leen ne xëy na ngeen a yàqamti dem rek waaye retrouvaille bi euh, mi ngi mi ngi ci yoon bi. loolu loolu nekk na loo xamante ne nii defe naa euh, euh, Macky dafa raté dafa raté quelque chose là-bas. Hmm. waaw li mu raté mooy en fin de compte sëgëm Ablaye Wade neewoon nañu jàppale Macky mais Macky sëgëm suivreul yóbbu ñuy procès xuloog ñoom et tout cela. sëriñ bu baax bi nga xamante ni mooy xalif général des mourides gis situation bi ñëw boole leen jubale leen bi mu leen jubalee ba ñu dem ba nga xamante ni lay Wade jóge na fii dem seeti Macky Sall mhm. Macky Sall def ko visite dik ko visite te ba tey visite boobu am na un de dafa dama ko fa xam nga loolu euh, non seulement dafa doy waat mais ki nga xam moo nekkoon suñu kilifa ak yow poste boo mënti yoon rek am na loo ko jox su moom déplacé mo ba ñëw ba ci yow yow nga xëy suba kii woogul foofu nag mooy li nga xamante ne ni moo naqari euh, presque tous les libéraux nde Macky Sall aujourd'hui yàlla def na ko président de la République c'est un libéral mm-hmm. normalement Ablaye Wade mag la mais normalement moom moo waroon nekk président des libéraux moo na moom moo waroon nekk le président bu fekkoon jugé géré woon na yëf yi et mu évolué mais segam dafa nekk à cheval entouré par des communistes des trotskistes de l'autre côté vision libérale am bi mu yor ak yooyu mënu ko manifester parce que day am clash et il a préféré effectivement Euh, rapprochement boobu mu bañ ci sori. Hmm. waaw léegi lii di euh, am nii nag dina ñëwaat ci rapprochement bi euh, dugg ku mel ni Oumar Sarr ci gouvernement bi yore mine ax yooyu Idrissa Seck nekk président conseil économique social et environnemental jàppoon ne rapprochement bi wala retrouvaille bi moo nekk noonu di concrétiser wu. waaw retrouvaille bi pour Oumar Sarr ça se comprend parce que dafa nekkoon ci parti bi ñu dàqu ku ñu dàq na te moom ba tey dafa am ambition il faut mu fu mu nekk. demul fenn ci Macky Sall la dem ça s'explique bon Idrissa Seck c'est plus compliqué parce que Idrissa Seck dem na ak Macky Sall. 2012 2012 wax na ko lu nekk yàq na ko lu nekk waxante nañu nit ñu comprendre ñu di jour au lendemain Idrissa Seck jël yooyu yëpp tekk de côté. ba pare ne dafay ñëw. loolu ñaari lecture duñ ci am benn bi. information yi joxe que Idriss Seck dafa nekk dans une situation financière très difficile moo tax mu def loolu. Euh, beneen bi nit ñi daal di ne ah Macky daal étant donné que troisième mandat bi mu bëgg a song gis na actuellement li mu donné au niveau de la sous-région il lui faut quelqu'un boo xamante dina ko mën a jox le pouvoir daal di ko jox ëllëg ak si biir buy génn du def troisième mandat mu jël ko jox ko loolu la ñu bari wax. yow ban ñaari thèse yooyu ban nga ci gëm. bi ma ciy gëm mooy gëwuma ci benn. tu vous savez pourquoi. Hmm. parce que Macky Sall xelam nekkul ci mu ne du dem troisième mandat di coacher ku mel ni Idrissa Seck. ndax lan. question de confiance. wóoluwu ko. wóoluwu ko tey wóoluwu ko ëllëg Macky kenn la wóolu ci àddina mooy bun Abdallah Dionne. Hmm. Boun Abdallah Dionne boobu. Hmm. moom rek la wóolu. le fait tey jii mu génn jëlee ko ci yëf yi deux choses soit que ab Abdoulaye Diagne comme li ñu doon wax dafa nekk dafa feebar mënu continuer ou bien mu koy réserver bu ñu demee ba dawal deux ans trois ans mu dekkalaat poste vice président. teg fa teg ko fa. nga xam ne Macky bu demul troisième mandat day pousse pousse Abdoulaye Diagne mu daal di ko nekk Idrissa Seck nag xam naa foofu la clash bi demee mais c'est trop tard dina fekk mu. utiliser ko d'une manière euh, est-ce que politiquement sax Idrissa Seck demam conseil économique social et environnemental du wàññi dooleem. bu baax a baax parce que en fin de compte euh, poste boo xamante ni parce que dafa am ñaari chose dafa taxaw ci Sénégal yëpp daal di ne dootuma nangu post boo xam ne moo ngi nommé par décret. ba sax ne bu faloo daf fiy jëlee conseil économique bi. ñaar yooyu yëpp. ba pare loolu yëpp Macky Sall indiwaat ko mu nekk wax waxeet boo xamante ne ni Sénégalais yi aujourd'hui faut mën dem les gens se disent que ni kii dafa nekk koo xamante ni façon bu nekk mu koy dégg. xalaat bi su fekkee noonu la demee kon euh, Macky Sall dafa nekk di rey sa sekk ci wàllu politique ndax euh, euh, boo xoolee élection bu dee ci wàllu vote rek lañ ko teg sa sekk mooy kii mën a sonal peut-être candidat bi ñëw ndax moom moo toppoon ci Macky Sall ci élection yi ñu weesu. moo nekkoon deuxième ñi ci des xëy na la ñu am mënut a sonal ak candidat ci ci ci premier tour. mën naa yegg ba foofu xalaat bi. loolu mooy li nga xamante ne nii moo ne parce que Idrissa Seck qu'on le veuille ou nekk na koo xamante ne nii politiquement il est très bien xam naa bu amul woon problème yi mu war a am kon defe naa bu continue bu continuer chemin bi euh, même ma euh, kii euh, Macky Sall buy duggaat ne day force il il trouvera Idrissa Seck en face de lui ah. loolu mu nekk loo xamante ne nii c'est gênant. kon mbaa moo tax mu jóg teel. waaw ci Idrissa parce que nee nañu Macky Sall moo dox jëm ci Idrissa Seck. voilà daje bi ak euh, àndaat bi Macky moo ko sàkku. voilà moo ko sàkku ñii ne def moo ko sàkku ñii ne situation financière wu Idrissa moo tax mu def loolu. mais Macky moo def premier pas loolu moom Idrissa Seck sax. waaw na ko ci bi muy def déclaration. très bien man d'après li ma dégg. Mm. Euh, Idriss Seck moo ko téléphone ne ko mm. banque yaa ngi may bëgg a rey situation bi nii la demee et ah. loolu lañ ma expliqué dama ko dégg rek boobu info jotaguñ si voilà mais loolu lañ ma expliqué mais man euh, en fin de compte li ma wóorte wóor mooy makisal du wóolu Idriss Seck ba koy jox pour mu ko parce que problème de confiance la ak loo mënti am ak loo mënti nekk problème de confiance la mais n'oubliez pas que bi Idriss Seck nekk premier ministre bi muy dem Macky Sall la ko remplacé lu nekk waxante nañ ko donc léegi bu fekkee position bi dafa changé. mi bëgg a taxawal partem bi sax Macky Sall laxasoon na ci jaan mu jafe woon lool. voilà laxasoon na ci jaan réew mi pour mu tudd réew mi yi tout un problème. Mhm. kon boo xam ñu ñooñu dañu nekk ci jeu boo xamante ne nii confiance mën na cee nekk ba mu mën a délai parce que le problème de Macky Sall bu fekkee day pour def troisième mandat c'est pour assurer sa sécurité parce que booy gouverner am na yu bari yoo xam ne da koy def. Mhm. te da nga bëgg boo fi nekkatul aussi ki lay remplacer. bokk ak yow ak waa dañ la solal te ko kenn rek la ci am confiance mooy Boun Abdallah Dionne bu fekkee Boun Abdallah Dionne nag pour le moment dafa feebar dañ koy réserver ah, ba nga xamante ni bu heure bi jotee ñu trouver une solution man dama ne woon sax sëgëm député la woon te la loi permettait boo nekkatul député te nekkoon. ñu fal la nga nekk ministre mën nga waat yooyu yëpp mën na ko dugal ko assemblée def ko président président mais y a Agnès qui est là également qui pose problème kon poste vice présidence bi moo fi nekk pour ñu jéem a inverser les tendances mhm. nañu yoon yàgg moom mi nga xam ne euh, <laughs> bawul dara. alors tey euh, retrouvaille bi noo ko noo ko noo ko gisee est-ce que yaakaar nga ne euh, fi ak diir bu gàtt ab lay Wade ak sàll dina ñu mun a ànd ba mel ni nga xam ne xëy na ñu bëri noonu lañ ko doon yaakaaree bi ci sañ mun Mountakha doxee ay tànki jàmm. waaw defe naa ni bu fekkee ni jóge na ci sëriñ bi. ñoom ñëpp ku ci nekk dina def le maximum pour euh, jéem a créer rapprochement bi mais problème bi ci nekk ba nekk ci mooy problème de confiance rek problème de confiance moo ci nekk waaye man ci sama gis-gis mooy libéraux yi dañu war a nekk ensemble Macky Sall c'est un libéral Ablaye Wade libéral la woon kii nekk libéral troisième président bi dafa war a nekk libéral comme ça. 50 ans sax moom dafa bëggoon 50 ans foofu laa doon ñëw. léegi nag 50 ans yooyu nekk na loo xamante ni euh, lu am solo lay parce que libéraux yi quand même fi ñëwee ñoo yu bees yi changé transport bi enseignement yi am na yu bari lu ñu def ñun mal on malheureux. parce que parti socialiste bi jëloon pouvoir bi. Mm. toog na fi 40 ans deful dara. ñii nag bi ñu ñëwee ak Abdoulaye Wade. ils donc quand même fait des choses defe naa ne bu ñu fi toogaatee cinquante ans dina am lu bari loo xamante ne nii dinañ ko mën a changer léegi nag problème bi ci nekk Ablaye Wade pare na Macky Sall 2024 mu pare léegi nag foogoon naa ni bu fi nekkatul Idriss Seck moo koy nekk. Mm. mais pour man Idriss gré nag Seck ses cartes. Mm. loolu nag mooy schéma bi mais man pour li ma gënaloon mooy libéraux yi daal former dank comme ça. bu kii génnee kii jóg kii dem wala bu ñu parce que bu ñu demee perte pouvoir bi ba mu duggati ci entre les mains des socialistes là le Sénégal est complètement léegi nag ils ont tracé un boulevard pour Sonko. Sonko aujourd'hui <coughs> euh, toll na foo xamante ne nii sëgëm opposition bi amatul kenn koo xamante ne nii ki ne parce que Idrissa Seck on peut plus le considérer comme un opposant c'est Sonko sax dàq nañ ko c'est Sonko qui prend le te sonk bu jëlee le relais dina nekk loo xamante ne nii euh, Macky Sall du ko nangu bu fekkee Idriss Seck ya kii na ko ba pare Macky Sall pour mu nangu ko jaral na ko sax man mu dem woowi Karim Wade. Hmm? oui bu fekkee sonk moo nar a jël pouvoir bi te Idriss Seck est complètement cuit jaral na ko mu def accord ak Karim Wade pour que situation beneen mais il na est pas question Sonko di ñëw pour moom. parce que waaw est ce que dana mën a téye Sonko ndax tamit sénégalais yi ñooy tànn. Euh, ca cëppaandaw la. xam nga aussi. te Sonko tamit luñ ko mun a waxal même si am na peut être ay mbir yu sew sewaan euh, crédibilité moom am na ko ci bëti sénégalais yu bari te itam jeunesse bi gëm nañu ko ñu ci bari topp nañ ko ndax euh, pour une première élection ko xam ne yaa ngi dogg a génn mu ñëw am li mu am aussi fekk fi ñeneen ñu mel nii Idrissa Seck ak ñeneen ak ñeneen ñu demoon ci ci élection bi loolu itam jar naa sóor wala. waaw Sonko xam nga nekk na koo xamante ne nii euh, c'est un expert fiscal bi ñu ko dàqee dafa ñëw déposer dossier am mhm. des experts te man je fais partie du conseil de l'expert pour dossier jàll man joué naa ci doon naa ci table ji pour que mu ñu accepter ko mu nekk expert xam nga ni kooku. nekk na koo xamante ne nii je peux dire que ni dama leen wax ne leen ñun on a beaucoup de problèmes aujourd'hui au au niveau de l'ordre des experts. Mm. on a un expert aujourd'hui qui est pré présidentiable koo xamante ni on peut élire ça. mais kooku ah. mooy Sonko. Sonko waaw. c'est un expert fiscal man je suis kii mais ordre bi. Mm-hmm. te on a beaucoup de problèmes yoo xamante ni lii kii defu ko kii yu bari yu ñu war a am étranger yi leen koy jox et tout ça man leen. ce gars là il au niveau de kii mais nañ ko jàppale jox ko expertise am bés bu nekkee président la république ñun suñu problème day réglé parce que problème yu expert yëpp da koy réglé parce que xam na problème yi ñu ne mu mais sa xalaat boobu noo xalaate ma ne que c'est comme ça administrateur civil yi dañu formé woon seen dànk mm. léegi experts yi sagam am nañ koo xamante ne nii il est potentiellement valable te xam nañ ko kooku je pense que nii fii mu bëgg a dugg non seulement def ci am trois kii ko mais on va pas con fa tenir des trucs yoo xam ne dañ koy jëm point c' est comme ça qu' elle a été agréée. Ah, ko doon bëgg a tànc daal ndax. waaw xam nga rek nit ñi waaw boo ñëwee léegi tu nous fais un papier comme quoi tu kii la politique xaw ma doonu ainsi de suite des détails man la ñu yéen de quoi vous mêlez. Mm-hmm. man j' étais. directeur général mais ba nekkee directeur général dans la section maritime mais. ça m'a donné des possibilités d'aider l'autre kii bu nekkoon euh, président de la république mais dina régler suñu problème yu bari donc je pense que ni loolu je suis fier de dire que ni on a œuvré pour que dossier jàll ba ni mu nekkee expert à l'heure actuelle même bu liggéeyul tey bu amul dàq nañ ko mais li muy gagné rek comme expertise étant un homme boo xamante internationalement il est connu loolu rek mën na ci liggéey yor partem ainsi de suite parce que fiscalité dafa rëy. te li mu ci mën liggéey dafa am doole. sëgam il est expert donc am na métier kon boog kii mieux vaut être avec surtout bu ngeen bokkee eh, profession mu nekk loo xam ne da leen euh, intérêt lay doon ci ñun. deuxièmement euh, nekk na koo xam ne dafa am fit hmm. courageux te tey ñii nit ñi dañ ko teg bopp. dañ ko teg bopp ñun bokkuñu obédience moom c'est un socialiste ou bien xaw ma lan ne mm-hmm. mais moi je suis un libéral su ma sañoon un libéral ni ñun mooy jël le relais mm-hmm. waaye au-delà de tout cela nit ki dañ koy xam parce que si on a connu des présidents yoo xamante ni kii euh, def nañ yoo xam ne kii ne moi je pense que la relève la mm. il faut l'assurer te relève bi ma gis Sonko am na fi place Sonko peut aider l'Afrique le Sénégal. te situation bi tey da gis ne dafa favorable pour Sonko. totalement parce que léegi numéro 2 bi fu mu ne amatul Idrissa Seck la woon Idrissa Seck jaay na boppam. waaw <laughs> jaay boppam nga ko gisee. ah dugg na ci loo xamante ni kenn comprendrewul ay schéma yoo xamante ni moom il a été toujours compliqué day dugg ci yoo xamante ni même balaa mu koy comprendre da fekk sax yëf yi jeex. daanu na ba pare loolu mooy schéma bi. donc je su ma sañoon libéraux yi continuer mais nag à défaut que amul libéral boo xamante ne nii mën na def yenn yi mais je pense que ni en tant que sénégalais xale bu mel ni Sonko te ñun ay mag lañu qu'on le veuille nee naa leen ñun ñii léegi euh, vraiment amatuñu dara lu ñuy def def nañ li ñu war a def xeex nañoo euh, Abdou Diouf kii nañu ko organiser ñu ay kii ba léegi c'est la relève moo fi nekk les Sonko la hmm. ñoo war a jël relève bi ñun ñoo war a ñëw toog léegi du ñu toog nag parce que on continue à travailler suñu xam-xam ñu koy transférer hmm. Euh, la nouvelle génération ngeen accepté ko moom laa doon wax léegi ak les experts là bi ñuy hmm. def visioconférence man leen vous êtes des vieux mais des vieilles dynamiques yoo xam ne war ngeen transférer ces choses mm-hmm. hmm? des jeunes comme Sonko il faut les encourager ñu ñëw jël la relève tey jii bu fi Sonko Euh, bu ab Macky Sall génnee un Sonko ñëw mais ce sera l'intérêt du Sénégal. il va redresser beaucoup de waaye sànq nee nga nee nga Macky Sall bu Sonko naree jël fi jaral na ko wooyu ji Karim Wade Karim Wade moom laa bëgg. Euh, ñu taxaw tuuti ndax sànq euh, wax nga ni bi ab lay wadd gisee ne Macky Sall fa bëgg a woolu Karim ci assemblée pour leeral ginnaaw bi ko ñenn ñi xelalee loolu ci la jafe-jafe yi commencé Karim Wade aussi bu weesoo loolu coow yi am parti démocratique sénégalais yépp ak ñi dem ñépp. moom lañ joxoñ baraamu tuuma ne mooy yàq parti bi tey mooy secretaire général euh, Karim Wade nee nañu mooy def mooy dindi ca ca PDS euh, ëllëgu PDS euh, ci loxol Karim Wade noo ko gisee. muy parti boo xam ne yàgg na Karim Wade bi ma koy xam mu ngi doon dem lycée nekk xale bu ndaw ñu nekk ak Ablaye bu ñu tegee dara mu ñëw kii ko xale bu ndaw nekk suñu kanam bu ñuy ree ñëw mu ñuy sonal fii kërti kërti nekk xale bu ndaw. mais euh, ma gis ci moom mu nekk euh, koo xamante ne nii en fin de compte euh, génération moom la gën a fonk que les autres ñun xam naka la ñu tuddee. Mm. c'est des anciens amis de mon père. <laughs> te ay parti ci parti bi lañ nekk de. Ah. mais ñun on des anciens de son père kon boog boole wuñu ci schéma am. noonu la leen doon wooyee. noonu la leen doon woolee bokkul ci schéma lépp loo xamante ni ñu ngi koy def nag papa ji jël ay ñu mel ni ñun teg leen si Karim Wade day opposé wu foofu la xamante ne ni kii bon d'une manière bi d'une autre am na loo xamante ne ni mu ngi koy yóotu man a j'ai compris tôt tard mm. papa ji moom la bëgg jël mu remplacer ko xalaatuma woon ni Ablaye Wade dina def loolu parce que un homme aussi intelligent démocrate ngay jël sa doom di ko dugal ci ay détails yu mel nii ainsi de suite mais Karim bi mu ñëwee au lieu mu jouer le ñi nga xam nekkoon nañoo Pape Dieng yooyu yooyu mu am fu mu leen teg bi évoluer mais ñoom ñëpp dafa leen combattre di leen xeex. Ah, ok avant ñuy kii sax la commencé ak génération. du concret man foofu laa ko cëppee ne kii mënul mënul nekk mënul mënul arranger situation bi léegi nag dem nañ ba nga xamante ne ni dugg na ci ay travaux yoo xamante ne ni. dugg am na ay situation yoo xam ne dugg na ci bon ñu koy accuser lii la def lii la lekk lii la ainsi le suite mu nekk un problème très compliqué mais je crois que euh, aujourd'hui ce que Macky Sall toujours en activité du ko may fu mu fu mu noyyee à moins que Sonko jommal ko Idrissa Seck jeex na ab Abdallah Dionne jeex na mu dem négocier ak papa ji ak Karim Wade pour ñu contre Sonko parce que wóor na ko wóor yàlla Sonko bu duggee ah du baax ci moom loolu mooy schéma am na tamit ñu njoxtu ne euh, comme ni nga wax nii euh, que ni sax négociation yi ak euh, waa PDS mooy continuer xëy na moo tax ñu dugg ci euh, schéma wu Idrissa Seck ngir euh, tegee ko boor ndax sa Seck aussi bu Karim Wade ñëwoon 2024 jàkkaarloog Idi li muy am mën naa bañ a bari ndax euh, quoi qu'on dise Idrissa Seck tey am na position boo xam ne taxawee na ko ndax chef de la position daanaka bu demul woon moom moo koy nekk moom moo topp ci Macky Sall bu fekkee ci base boobu lañu ko lañu ko tànnee yaakaaroon na tamit deal bu dee mun nañ ko waxee noonu comme moo xew moo am ba tey ci biir libéraux yi ñuy jéem ku mel ni Idrissa Seck pour teg Karim ndax gise beeg Ablaye Wade ñu bari jàpp nañu ne jeexul wala waxtaan yaa ngi wéy. non mais man je crois pas parce que en fin de compte euh, connaissant l'homme je me rends que ni il est tellement ci moom. kan hmm. ba finalement am na yoo xamante ne nii euh, gëmu ko daal te en fin de compte Karim Wade ci boppam. Euh, ñëpp xam nañ ni pour deux mille vingt quatre mënul ne deux mille vingt quatre mënul ne je peux dire que ni euh, deux mille vingt quatre l'homme bi nga xamante ni moo moo moo taxaw te il est relativement jeune c'est Sonko Karim ce sera peut-être après parce qu'il est quand même jeune waaw mais à l'heure actuelle mais ci biir PDS ñu nekk fii dikk ak yooyu parce que PDS aussi xam nga boo jël nekkee ci poste am pouvoir yor les moyens di évoluer nga xëy suba dara taxawatul ñëpp kiiwatul ñëpp sonn mais c'est inimaginable ñu bari dañuy wuti feneen léegi am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi làq di xool nag la ñuy jege see Macky <laughs> euh, léegi nag sëgam euh, jël nañu. l'autre là comment il s'appelle Omar Sarr Omar Sarr ku moytuwul dina viré PDS. moom Omar Sarr waaw. tàmbali woon na sax ndax ñoom créé nañ seen parti. créé moom ñoom Babacar Gaye ak maître Amadou Sall. ku moytuwul nag mu viré ko parce que problème yi mooy problème mu moyen lay doon. waaw tàmbali na ñoo tànk ñoom kay nëbbatuwuñ sax. ña ngay recruter ci biir PDS. kon boog ña ngay recruter ce qui veut dire que ni bon Karim étant absent Ablaye Wade très vieux léegi lan moo des PDS léegi. day gën faible kon Karim Wade bu ñëwoon il faut que mu reprendre à zéro dina fekk place bi ñu occupé ko d'une manière ou d'une autre à mu bénéficier wu de aura te loolu c'est un temps et puis c'est terminé loolu mooy situation bi. Hmm. kon daal PDS tey yaa ngi ko gis ci loxol Macky Sall ak ña mu àndal. waaw PDS. àll ba fee tur waa fay des. waaw fee daal bu bu continuer Euh, Idriss Seck moom dina taxaw pour jéem a fortifier parti mais buñ ko joxee ay garantie ne ko après moom après kii moom la là automatiquement il va jouer le léegi nag dina fekk Macky Sall tey jii écrasé ko ba dootul tekkeeti dara même bu bàyyee kenn dootu ko wóolu mm-hmm. Ah, nit ñi de fi ne nii moom. waaw vraiment tourné nañ ko lu <laughs> ñaaw na ci bëri digg jërëjëf Cheikh Touré ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci démb ak tey doon waxtaanee euh, parti démocratique sénégalais surtout euh, diggante Ablaye Wade ak Macky Sall génn geek euh, yi ci aju li lay taal waxtaan wi mooy li ñuy fàttali ko ëllëg caltine ji 9 novembre 2008 la xewoon muy keroog ba ñuy destituer Macky Sall ci bopp assemblée nationale di jëlee mandat bi ci juróomi at di ko indi ci benn at moom mu gisoon ne dañu ci bëgg euh, mu daal di far euh, dàq boppam bala ñu ko faa génnee ni nga ko waxee sànq euh, ñu fàttali ni yow yaa ngi bokkoon ci parti bi nekkoon nga aussi député occupé woon ay responsabilité yu bëri xanaa bàyyi la rek nga tàggatoo ak auditeurs yi en tout cas mbégte mu rëy la woon ci ñun fàttaliku démb ak yow Touré. waaw da ngeen nekk ñoo xamante ne nii bu leen amul woon il faut ñu wuti leen. Hmm. parce que da di dundal démb. te ñu bari lu weesu rek fàtte nañ ko léegi lii nga def dafa nekk lu am solo parce que am na ay xale yu door a dugg ci yëf yi xamuñu lu xew xamuñu suñu tour or dañu jouer suñu partition ba décider ni li la ñuy def ah, loolu nag di ko fàttali pour ñi nga xamante ni ñooy jël relève bi xam ne am na ñoo xamante nekkoon nañ fii et tout ça à travers seen émission buñ ko déggee dina nekk loo xam ne lu positif la kon daal maa ngi lay gërëm di la sant effectivement. man nag sama cursus yëpp ci PDS maa géré woon tous les cadres du PDS te tey jii PDS defe naa ni bu accès au pouvoir c'est yi mais ñëpp xam nañu boroom xam-xam yi ñoo ci joué un rôle extrêmement mooy cadre yi jërëjëf mm-hmm. di la gërëm di la sant. Mm-hmm. ñu ngi lay gërëm bu baax euh, di la sant. gërëm auditeurs yi doon déglu ak jaaw jàll mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam ngam la woon ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog jàmm.